fu ñuy tàmbalee. fi ñu tàmbalee Boubacar moom mooy limousine combat bi amoon la la nag démb nag yàggul. Mm-hmm. ci euh, ca Bargny ah. Mm-hmm. xale yëpp xale yu côté euh, Bargny Tëngéej yooyu la ah. tubaab Jalaw xam nga foofu dëkkuwaayu mbër la. exactement dëkku mbër la. Mm-hmm. tefes gi daal jàpp li ko wër daal. ak joor gi daal xale yooyu lañ jëloon mettre leen en valeur ce jour là. ci stade bi nga xamante ne moo nekk stade de Bargny. limousine 2. seen wàllu ndeyjoor moo sut taxawaay Abdoulo. seen wàllu càmmuñ ñoom ñaar ku nekk gidal tànk càmmuñ ah. Mm-hmm. Vamos maa ñu dem. Euh, limousine 2 am na taxawaayu athlète. oui il est grand. sëkkatal waa ji loxo bi ki suuf ma jaaxal jam direct di gauche. Ah, ah. adversaire bi fël ko mu romb ko quand même. loxo bi sachet. Ah. pan. Mm-hmm. dévié pour mbañ a dal ci kanam gi pan mu jëm na lee. Mm-hmm. Vamos maa dem mu sëkkatal ko nga topp ko côté saag yi. Abdoulaye pratiquement mi ngi saagi jege na ko lool mais na dóorul il faut lancer ah. Krépin mm. doo ko yebal da nga koy yónni carrément ban. Mm. ba tey limousine ñëwaat asu ci kawam parce que tout simplement gis na ne adversaire am réagir faywul. Mm. mbër na boo nekkee ci làmb di fight ñu lay dóor fayoo waa ngi da lay topp la di gën a dóor. parce que dóor fayu moo koy faj. na ko mais mais kii dafa mel ni ku ku ku mën a esquiver ay coups. loo ko yónnee rek. mu yónni ndeyjoor. voilà moom de aj na ñaar loxo yi loo ko avant yi rek mu éviter ko. Mhm. mais ça ne suffit pas damay paaraat riposte. Mhm. loolu moo tax ñu wax faayet waaye bu lay dóor ngay fil te fayoo amatul njariñ. Mhm. da ngay fil kay xanaa fayu mu ñëw tollanti crochet droit moom mi ngi aj loxo yi rek mi ngi subir ah. jamaat ko gauche. ah il réagit. mu topp ko ah. topp na ko sañaxal ko bu arbaa ngi leen di téye parce que génn nañ saako yi. mu jël benn avertissement moom Abdoulaye ba tey limousine topp ko nennu na ko nennu mu dem songi à l'aveuglette dafa wàcc rek dem def lu ñaan genre na jeex wala boog jébbalu day am ci combat ah, ñu sëkkatal la teg la nga song song boo xamante ne baaxul parce que munoo dékku aso yi munoo fayu nga dem jébbalu ji jébbalu nag Boubacar ku ne xam na ko. mais dafa mel ni dafa jël léppam rek jox ko waaj. actuellement loolu la nduru mhm. ba mu ñëwee di jébbalu si nag adversaire da ko bal nag nanguwul ko jébbalam nag. da ko dëbb bal ñaar loxo carrément lii lu ñuy tere la très souvent ci booy bëri dañ naan la bul nangu ñu bal la ñaari loxo bu ñu la balee benn loxo dafa war a nekk bras dessous bras dessus sol nañ ma fii man damay sol fii sol nañ ma fii man damay sol fii dafay dugal damay dugal mais nga bàyyi ko mu dugal ñaar yëpp mooy déjà kii di limousine moom moom adversaire am parce que bal na ko ñaar loxo ba pare vamos maa ngi dem bal na ko ñaari loxo ah. mu yóotu Guédiawaye mu lànk waaw parce que bañ bi mu bañ. Hmm. moom na su jàppoon Guédiawaye peut-être mu am chance aj na ko ah moom na ko déjà ah. hmm. bu ngi naa bu ko nangu lañ jébal moom na ko takk na ko hmm. tegal na ko li ñu naan chaise ah. tegal na ko pakk ah rëcc nañu génn nañ saag yi maintenant mais arbitre arbitre yaa ngi leen di seetaan parce que am na volonté maa fii volonté arbitre bi moom mooy gis na ñaari mbër yi kii mi ngi bëre ki wane ginnaaw kii mi ngi def fuite de combat moom euh, Abdoulou limousine mi ngi def combat gis na ne Abdoulaye génn na benn tànk bi ci biti. mais arbitre bi bàyyi. arbitre bi bàyyi parce que fii la di bàyyi ngeen am chance su bëree ci à côté de sacs. des fois nag c'est un peu louche dafa waroon dafa waroon arrêter combat bi wala. mais comme que ñu ngi ci faux action. Uh-huh. dafay favoriser rek li nga xamante ne mooy tax jël la am. ñu ne Mao nga xool action bi encore démb xaw na indi polémique ah. entre l'arbitre et ses juges. Uh-huh. actuellement ñoom ñaar kii di Abdoulaye génn na saak yi. mu topp ko. mais dañuy jàpp ne rek action bi ci biir la ame terminé ci biti mais génn nañ saag bi ñoom ñaar l' action continue. l' continue. ba mu daan ko vraiment presque ci côté décor ba. arbitre bi d' accord il n' est pas d' accord l' arbitre central boobu. dafa ne non. après nag ñaari arbitre yi indi ko à la raison. Uh-huh. ñaari ñaari assistant yi. Uh-huh. dafa njëkk ne non. dafa njëkk ne non dara amul. Ah, après ñaari assistant yi ñëw approché ko wax ak moom. Mm-hmm. mu jël loxo yëkkati macha allah. Mm. kon duñ ci guddal duñ ci gàttal noonu la ki nga xam ne limousine daane Abdoulaye jël mu set wecc. li ko amul benn benn benn werante mais mhm. bi dafa waroon a siffler ñu taxaw parce que génn nañ saako yi saa yi génnee saako yi arbitre bi da leen di dugalaat. bon dans la logique des choses fii bi stop amee fii stop bi bi ñu taxawee ci saa yi foofu dafa war a arrêté combat bi. mais dafa mel ni keneen. mais bu nekkee ci feu de l'action nag day feu de l'action day bàyyi ñu dem. Mhm. maanaam nga jëlee ko ci biir dawal nga ko pour daan ko ci biti tant amul stop rek day bàyyi mu jàll mais bu stop xasee am rek dafa war a arrêté combat bi indiwaat leen ci géej gi. dama seet Gris Bordeaux. exactement xeex boobu ba dem ci saako yi ba dem ci saako yi ba dóorante ba tëdd ci saako yi ak bàyyi mu dem mu dem c'est logique. parce que loolu jigéen lañ commencé woon. d'accord